mbokk yi nuyu naa leen monsieur le ministre de l'enseignement supérieur euh, dañuy faral di wax naan euh, ku ubbi benn école tëj nga benn kaso kon ku tëj benn école ubbi nga kaso moo tax may wax gouvernement bu Sénégal mu dégg jàngalekat yi université Cheikh Anta Diop bu Dakar dégg étudiant université Cheikh Anta Diop bu Dakar ubbi waat université Cheikh Anta Diop bu Dakar. monsieur le ministre 2014 ngeen commencé tabax ay amphithéâtre ak pavillon université Assane Seck bu Ziguinchor ngeen waroon ko livré 2016 ñu ngi 2023 juróom-ñeenti at ba léegi livré wu leen dara jàngalekat yi université Assane Seck bu Ziguinchor sonn nañu étudiant université Assane Seck bu Ziguinchor sonn nañu lu waral retard bi kañ ngeen koy saafara monsieur le ministre amal ngeen bor établissement d'enseignement supérieur ngeen orienté fa ay étudiants li mu jur mooy étudiants yi fa nekk bu ñu bëggee jot seen bulletin wala seen diplôme licence dañuy am jafe-jafe pour jot ko ñu leen di wax fay leen deux cent mille fay leen trois cent mille état bu ñu fayee ñu delloo leen ko mën naa leen jox benn misaal université du Sahel te du moom rek donc loolu ban taxawaay la ci état mën a am pour sàmm les droits des étudiants waaye itam fay surtout boru établissement yooyu monsieur le ministre ñu bëri ñu ngi wax suñu ENO fu mu toll 25 juin 2021 ngeen commencé programme tabax 46 ENO ak ISEP boobu ak léegi lépp mu ngi ci fondation yi bindoon naa le mois de août boobu entreprise Batilande mu ngi ameloon quatre mois d'arriérés de salaire ces travailleurs j'avais tiré sur la sonnette d'alarme tey ñu ngi leen amel huit mois monsieur le ministre qu'est-ce qui se passe ak lan mooy solution li monsieur le ministre université numérique Cheikh Hamidou Kane étudiants yi bu ñu daanee dem master ñii ñu orienté leen ñii ñu ne leen dem leen fay la partie payante mu mel ni ci benn université am na place mais on donne pas à ceux qui ont les moyens monsieur le ministre ay étudiants sénégalais ñu ngi Turquie yéen a jox information yi étudiants yooyu ak parents ba ñu dem foofu ñu ngi dund nekkin bu métti ñu ngi sàkku ci gouvernement bi mu xool naka lay régler loolu. monsieur le ministre des waxal ma gouvernement bi ne kontaan ñu ci li ñu libéré démb Marie Diagne Fenn patriotes yi Ousmane Sonko nee na kontaan na ci yéen nee na ñun ñëpp nañu focus Ousmane Sonko cinquième président. 1, 2, 3 millions de parrains pour Bassirou Diomaye Faye